jërë ngeen jëf fukki at ginnaaw ba M23 ju deewee tey moom le 23 bi lee ñaari xew-xew lay doon ci alarba ji lee la tribune mu ñu ko xëy xamal journal bi mi ngi ñu xamal ne waa M2D ñoo ngi HLM Grand Yoff waa M23 ñu ngi place de la nation moom journal bi mi ngi ñu mi ngi laajte kan mooy gagné le pari de la mobilisation ci alarba ji lee ci quotidien ci fukki at yu M23 waa opposition bi ñoo ngi ñoo ngi ñaaw njort ci troisième mandat bi lee ñoo ngi koy xel ñaar enquête moom mi ngi xëy di wax si ndono bu M23 ndaxte kii di Doudou Sarr nee na M23 ñëpp ko bokk te kenn du ko aakimoo les échos nguur gi ak opposition ñoom ñaar ñëpp dinañ gonto tey ci alal bi jëlee ci place de la nation ku nekk si moo ñoom bëgg natt sa bopp si wàllu mobilisation li l'observateur ne M23 daa mel ni dooleem day waaj a wàññeeku ndaxte journal bi nga ngi ñuy xamal ne préfet bu Ndakaaru avant bés bi di ñëw jot na luy lu toll ci ñeenti demande d'autorisation ñaari ñaari ñoom dañoo fomm yeneen ñaar dinañ amal seen manifestation m waa M23 ak waa m d ca direct news moom El Hadj Ndiaye di patron bu 2STV moo fa nee na Youssou piraté fréquence am depuis 2018 nee na affaire boobee du bàyyi mu sedd ndax ñiy jàppale Youssou Ndour ba Youssou Ndour nekk li mu nekk tey moom ci la bokk te nee na ñuy jóge 2S dem dem groupe bi di groupe Futur Média ñoom ñëpp bu ñu leen fa jëlee li fay des du bëri ndaxte moom El Hadj Ndiaye na li waa GFM def ci sodaaf yëfu banditisme yooyu nangu moom ñu def ko ko réew mi quotidien ne ca ca Sonatel fukki million ak ñaar la ñu fa sàcc le soleil ne Sénégal inauguré na démb centre de données ca Diamniadio centre de données boobee bokk na bu gën a ci biir Afrique de l'Ouest moo tax it président Macky Sall nee donne données Sénégal yi nekk ci bitim réew yooyu yëpp lañ leen jëli dem yóbbu leen ca centre boobee ñu jàll si wàllum tàggat yaram record ne Portugal France choc de champion ci sunu lamb Sa Thiès nee na digganteem ak Moussa Ndoye moom mooy te dina ko daan libération société BIDI, exploitation de carrière du Sénégal 250 millions l'année